xool du nekk fi jëm def la ndékki balaa muy yow Unbelievable. ok noonu maa ngi ci biti nii ci suuf escalier yi maa ngi ci suuf escalier yi waaw waaw dama boîte à lettres bi laay xool sa coupelle nag day taw fi ne day taw coupelle il pleut il pleut waaw ok ciao ciao mu hmm, ko mësal kii mel ni dof bu maamam yokk lii dama ko mësal wuyu ma da ngay arrêté oote fajar bi ngay dégg. wuyu ma nii laa la koy téyelee ngay lekk ndànk. léegi xam nga non loolu day métti ci yow téye ko nii man tey jii xam nga nu may def. damaa bëgg bala maa bala maa lekk ma daggal ay saaga sama jabar bi. saaga loo ma permettre loolu ma daggal ko ay saaga. daggal ko gën a bon. wuyu ma li ma def bii mu ko defati non wuyu ma mu ko def. may soog a ñëw rek. nañ laay ba sa kanam. bu ñu xam ne daf koy dëkk. non yow tamit loolu dafa. xam sama bopp te mu taxal ko ci dara bi bu ñëwee ni ko gis moom day day sant. mais ki ñu waxoon léegi nee na moom xool dans six mois la wax. dans six mois yow ñoo koy nekk fii man ak yow loolu duma ko mën wuyu. eh xool. maanaam ma jéem a. nekk bu suuf. kon monsieur am xamul nu ñuy def na dem ca salon. wala gën a gisee nii li fi mu ne nii tayal ma ko. yow sax ngaa yëgati daal. xëy na damaa sonnoon ma dem ba ko xam ne si daal bi si saa bi. fekk dama tege bu ñu ko téléphone su ko defee ñu mën fee am sax noonu defal. dafa ñëw pour jàng si wala dafa ñëw pour toroxal ii waaye sama lalu jabar ji li ma fi def ëpp na de yaa dem yaa dem yónnee ma yaa ma ko yónnee de man defuma dara yaa ma ko yónnee moo ma ko yónnee de man defuma ma ko moo ma ko yónnee li ma yëg fi mu ne nii maa ah. waaw léegi dama bëgg nga préparé ñu dem Tour Eiffel dem sensibiliser wër def suñu doxantu ma wan la dëkk bi wan la réseau yu baax yëpp loo xalaat waaye man de li ma jotoon a dajale Sénégal moom laa jëndee billet ñu pour l'instant dinaa la jox mille cinq cent euros nga téye du ko tamit xale carte gabani ñetti compte laa yor ñett ba pare sama jabar lu mu liggéey fii la koy teg dama koo teel nag lu mu liggéey sama la ko teg waaw yow nga fanaan ak man fii da nga koo xeeb mëlañ mëlañ ji nga nekkoon ak man fi mel ni jaan jaan ju ñuy rey te deewul loolu daal. jógal jógal ci biir. ii. jógal jógal. waaye kii est-ce que moom yaramam nekk na.